waaw gis ngeen ko noonu Balla Gaye nga noonu le lion de Guédiawaye di préparé combat am ak digganteem ak Bombardier yaakaar naa ne combat bi teg na ko foo xamante ne su fa teg benn combat ndax ku ne xam na ne Balla Gaye boo waxee ñu ne dafa mën revanche dafa mën revanche voilà tey cette fois yi nag moo tax nelawatul yendootul lépp lu mu am mi ngi koy def ci entraînement yi mi ngi koy def ci combat bi ah kon Bombardier préparé xam naa ne combat bi du yomb leen xamal ne xam sa mbër gi ñëw ngeen préparé ko yéen fans yi yéen supporters yi yéen amateur làmb yi yéen ñëpp mbër yëpp bàyyiwuñ benn mbër comme ni ko daan defee rek waaw du yomb seen chaîne ngoog xam sa mbër TV leen fàtte abonné